mukarraman bi qirat tahaati wa sadadi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñuy déglu ak seetaan bi ngeen ñuy seetaan ci sunu actu point comme ñu ànd ak yéen ci naafale bis bi ñu ko jukkee ci téereb Serigne bu Mbacké bi ñuy wax xoratul ay nii ñu ànd ak yéen ci guddig juróom-ñeenteel bi guddig juróom-ñeenteel bi ñeent rakka lay doon rakka bu nekk dina ci jàng faatiya tabati yaddaa ñetti yoon xul wallaahu benn yoon ñu baamtuwaatal leen ko guddig juróom-ñeenteel bi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 laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman biqirat tahaati wa sadadi